bisimila mbokku internet yi dal leen ak jàmm seetoo seet mbara wàcc ci wàccee boppam coonoy célibataire mooy rappeur bi di baxaw bokk ci groupe Dabren waaw waaw baxaw dafa daw ba dugg benn dëkk ñaari gaar di Thiès daanu fa leer daal di fay jël ab soxna su taaru te yaru ginnaaw tasub sëy bi doxoon ci diggante feraram bii di Tafa ak Viviane Chidita mooma baxaw jum daal di nay jël soxna moo ko waxoon def na ko xamle woon na ci ay bés yu ñu weesu ne takk soxna dina ko def ci lu yàggul dara tey ji ci kàttanu suñu borom yéeneem àgg na mébétam antu. baxaaw na war émaax yi loolu laa bëgg a xam mais baxaaw léegi laa bëgg xam lu tax mariéwul ba léegi. nañ dégg ne léegi ma tàkk jabar incha allah ci kàttan yàlla yàllaa ko bu ko yàlla tuddee rek mais du yàgg ñaan yàlla mu tudd ko léegi rek bu koy tudd léegi rek ma koy takk. ñu ngi koy waajal dañuy xaar mu jóge ci aras wàcc rek ah. waaw. <laughs> luy jot jot na te lu jot yombo baxaw moom jot na takk soxna su rafet te taaru lool la te boobu la sëy ñu ngi ko foofu foofule ca tuubaa kër way juurub xale bu jigéen bile moom sëñ baxaw nag jotul la dal di publier boobule mariage ku ne nag xam na ne jamono ji ñu toll ci waxum coronavirus ji dañuy tere bépp rassemblement xëy na bokk na ci li tax jotu koo xam le ngeen bañ ni ñi dajaloo waaye nag daanaka sëy bi moom amal nañ ko ci jàmm ak salaam waaye ndem Tactic TV mooy dugg fi ne sañ lu ne xam lu ne moom mooy siiwal ak di leen yëgal lépp lu xew taxaw takk na soxna te li koy firndeel di kile di Viviane Chidid actrice bi di Keisha Khadija ak lu bari ci ay xaritu baxaw jot nañ ko daal félicité ci Instagram waaye ñoom ñilee ci sutura jotuñu publier photo ki nga xamante ne tey jii nii moom mooy soxnaab baxaw li am ba des mooy ñu ñaanal leen yàlla dëgëral seen diggante te barkal sëy bi jërë ngeen jëf